yow oh, bokk nga ci ñuy légitimer troisième candidature. waaw waaw waaw loolu amul sax demal ñëw fan yëpp si lañ nekk deuxième quinquennat loolu dama koy xeex ba tëdd suuf. un jeune comme mais un jeune comme mois bëgg Sénégal gis un président jeune koo xam ne ba muy ñëw programme am lan la woon yoonu yokkute yoonu yokkute ba ma koy dig en 2011 ma gis sama Sénégal boo xam ne courant day xuy xamaj Sénégal boo xam ne inondation partout Sénégal boo xam ne embouteillage doo dem doo ñëw président boobu jël réew mi ci ci day deux mille vingt trois presque mën naa ne fukki at ak benn changé na ma tey courant bi doon koy xamat koy xamatatul. mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais